seen agence de voyage Minan Travel nekkee ci diwaanu Parcelles Assainies unité 7 ci wetu kaas bi dendee ak pharmacie Baraka bi yëngatu ci jaayum billet d'avion réservation de billets réservation d'hôtel demande de rendez-vous umra ziara Fès ay assurance de voyage assurance auto wala moto ba ci sa transport aéroport seen numéro téléphone di 78 171 0303 wala 76 517 10 10 seen agence de voyage Minan Travel moo leen di may li ci yéene kaay cher jentenet yu enquête 221 leen jàmm dalati leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi ñu commencé ko vox populi mi del ci gouvernement bu bees bi nga xamante ni taxawal nañ ko yëglekaay bi ne président Macky Sall de jamono ji tegaat na yeneen stratégie pour mën a jeexal nguuram bokk na ci indi ay ministre yu bees wàññi limu ministres ya mu yoroon di 39 ministres gouvernement bu beesam bii nag fanweeri ministre ak dong ñoo ci nekk te bokk na ci ñu doon xaar ko mooy ministre de l'intérieur nga xam ne mooy organiser élection yi te président kenn ku dul Makhtar Cissé ngir mu organiser rek élection présidentielle yi waaye seetlu gi mooy gouvernement bii de képp ko xamante ne ni jege woon nga Amadou Ba doon ko défendre suba ngoon guddeeg bëccëg dañ laa mujjee écarté nekkatoo ci biir gouvernement bi ndax yéenekaay bi xamal nañu ne Lat Diop mujjee nañ koo dàq Doudou Ka mujjee nañ koo dàq Cheikh Omar Anne mujjee nañ koo dàq Fatou Diané mujjee nañ koo dàq te ñoom ñi ñëpp ay pro Amadou Ba lañ leen doon woowee dañ leen a libéré jamono ji est-ce leen a bëgg a bàyyi ñu ànd campagne ba dara du leen ko yàqal wala boog président Macky dafa bëgg a tàqalikoo ak ñi gën a jege Amadou Ba seetlu gi daal moo di ñoom ñëpp moom génn nañ leen ci gouvernement ba ba tey yéenekaay bi des ci Samba si ak El Momar Samb ñoom itamit dàq nañu leen Mankeur Ndiaye mujjee dugg ci gouvernement bi gannaaw ba mu toogee ab diir biir gouvernement bi ba tey yéenekaay bi dañu xamal ni Ismaïla Madior Fall moom dañ ko mujjee wàcc ci poste ba mu yoroon def ko léegi directeur de cabinet bu président Macky Sall Ba dañ ko gën dooleel ci biir gouvernement bi jox ko économie finance ak présidentielle yi nga xamante ni bu ñu sukkandikoo ci biir yéenekaay bi candidat recalé yi ba léegi si laa la wax bàyyeeguñu nee na nag dañuy attaquer décret bi président Macky jël bëgg a organiser yi le mars bi ñu jëm ñoom candidat recalé yi ne du ci dal tey du ci dal ëllëg Mamadou Diop Decroix moom di xam ne ci biir yéenekaay bi ne danañ dem cour suprême de ci altine bi ñu jëm pour mu daal di acté ñu annulé nag décret bi président Macky sénégalais yi sonn nañ ci xiiroo géeg ngaayoo gi li ñu bëgg moo di dem élection présidentielle balaa ñuy yegg rek le avril comme conseil constitutionnel waxee dëggal président Macky Sall le 24 mars am bii te yi nañ leen bàyyi ñu wàcc teeni bii dem campagne ji Thierno Alassane Sall ne dem campagne ci weeru koor gi dana compliqué de 15 heures nga bëgg a woo jeunes yi ñu wàcc ci terrain bi ànd ak seen koor loolu laa la wax dana compliqué enquête yi bi di ñu gën a xamle moom mi nga xam ne mooy organiser élection yi ministre de l'intérieur ni ki démb nag la remplacer Sidiki Kaba ci poste bi ni mel altine gannaaw suba gii la fas yéene def passation de service yéenekaay bi def taxaw seetlu ci moom na en tout cas li ñu xam ci moom weesuwul nit ku sérieux di dajale ay doomi aadama liggéeykat dëgg boo koy xool jàppal Makhtar Cissé donte nag fi mu toll nii mission bi mu yor compliqué na lool ndax ma ngay organiser nag élection yoo xam ne bëri na coow bëri enjeu ndax dina ko doxalee comme ni ko ñëpp yaakaare loolu nag fi mu nii moo jara laajte l'observateur bu bees bi président Macky Sall la taxawal li ñëpp jàpp moo ci am de dendandooru Ba yëpp yëpp nag mu jénnañ leen ne nii président Macky Sall daal ci ay calcul la nekk ay choix yoo xamante boo koy xool calcul kese rek dong nag moo ci nekk tànneefu Makhtar Cissé bi tam yéenekaay bi dellusiwaat na ci ba ci Karim Wade ak ñi mu àndal nee nañu dañoo bëgg nag kase nag décret président Macky Sall bii mu jëloon convoqué corps électoral bi ni altine bii nag danañ dem cour suprême pour ñu dakkal élection élection présidentielle yi ba yëpp leer lii quotidien di samp laaj ci gouvernement bu bees bii ñu taxawal ni ki démb yéenekaay bi na lan moo fi jar parax-parax gi changement bi ci waxtu woo xamante ne nii ñaari semaine rekk kase dong nag moo desee président Macky Sall ci bopp nguur gi lu fi jar remaniement bay écarter ay ministres yoo xamante ne nii mën nañ am frustration ndax dañoo jege woon loolu nag Amadou Ba yéenekaay bi ne Cheikh Omar Anne ca la bokkoon dàq nañu ko Fatou Diané ca la bokkoon tam nañ ko Lat Diop ca la bokkoon dàq nañ ko ñoom ñii ñëpp ay jege ñaale Amadou Ba lañ dañ leen mujjee génnee ci gouvernement bi dellusiwaat na ci place am mook Thérèse Faye te ñoom ñaar ñii ñëpp xam nañu ne laalee wu ñu tàll laa la wax ak Amadou Ba lan moo tax ñoom ñiy des ci gouvernement bi ñu dàq nag ñi gën a jege Amadou Ba lii moo jar a laajte am def taxaw sel ci libération président Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ci jamono joo xamante ni loi d'amnistie bi voté nañ ko ba noppi lan moo tax mbir yi yeex en tout cas yéenekaay bi xamal nañu ne promulgation bi moom ko doon xaar état ñu ko nag bi comme publier ci journal officiel bi ak yenn ci ay détenu politique mën nañoo génn laa wax ci début de semaine bi li wér daal moo di mu toll nii boo xamante ni gouvernement bi def na ko ba tey yéeni bi desaat ci gouvernement bu Macky Sall gi nga xamante ne ni juróom ci ay ministre dàq nañu leen fanweeri ministre ak ñeent ñoo mujj nekk ca gouvernement ba yéenikaay bi ne bokk na ci gouvernement yi gën a gàtt fan nag ndax ñaari semaine dong lañ fiy toog moo tax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 pharmacie Al Maktoum solution bi fii la fekk baax pharmacie Al Maktoum ay produits am disponible na partout Sénégal ak sax ca bitim réew bu dee yéen ñi nekk Sénégal jokkoo leen ak maam Cheikh Tidiane Diop numéro bi di 77 604 07 71 nekk ci diwaanu Italie jokkoo leen ak El Bachir Faye numéro bi di plus 39 338 916 03 90 bu dee yéen ñi nekk ci diwaanu Espagne Barcelone ak li ko wër jokkoo leen ak Cheikh Sadibou numéro bi di plus 34 602 11 12 28 match ñu nekk ci diwaanu France Paris ak li ko wër woote leen ci plus 33 744 75 08 39 yéen ñu nekk ci diwaanu Angleterre woote leen ci plus 44 77 22 08 89 57 yéen ñu nekk ci diwaanu Maroc jokkoo leen ak Cheikh Tidiane Sarr numéro bi di plus 212 681 289 672 li gën a neex nag ci pharmacie Al Maktoum mooy indi nañ leen ay savon yu bees taq ngir xeex lépp lu jëm ci wàllum ndoxum siti di defar sa teen ba muy nes nes yi kon nag gaaw leen contacter pharmacie Al Maktoum ndaxte kat wér gu yaram baax na ci doomi aadama jaaraama pharmacie Al Maktoum mbokk yi yéen ñu amoon jaaxle-jaaxle ci seen wàllu wér-gu-yaram tolof-tolof ci seen dund ci seen wàllu liggéey ba ci seen wàllu sëy solution bi ñëw na ak sëriñ Modou Khary Mbacké boroom yàlla baax sëriñ Modou xari Mbacké dafay def listixaar bu wérte woo te leer nañ ñi day def tamit seet façon seet yépp daf koy def moo xam bu biddiw rawxaan kurus suuf waaye tamit képp koo xamante ni am nga gàllankoor am na fi ay sangat yu la mën a jàppale yow mi bëgg bayre la cat sonal la nga bëgg wërsëg ubbeeku fii daal solution la am na ay jaaro cat jaaro kaara kaaraange jaaro wërsëg jaaro bayre yow mi am jafe-jafe doom yow mi bët sonal lool soxna si bëgg a ëmb te am jafe-jafe jigéen bu am jafe-jafe ci wàllu réglam yow mi say nopp di riir kuy fatt saa su nekk Serigne Modou Khary Mbacké dina la jàppale waxuma la dara sax waaye dafay toj liggéey di dindi tooke ci yaram yow mi am bëñ biy metti ku paralysé mu xam xale nga wala mag yow mi boroom yàlla baax dafay faj tamit ay rab di def ay traitement ci wàllu yaram yow mi tële nag wala boog nga gaaw a daanu boroom yàlla baax am na ci ay solution yu gaaw ba ci mi bëgg wala nga yor hémorroïde wala nga bëgg bayra njaay fii ñëw gis fi solution adresse am nag mu ngi ci diwaanu Kër Massar M3 arrêt 54 bi ngay jubal jëm boulangerie 2000 boo fa yegsee foo laajte Serigne Modou Khary Mbacké boroom yàlla baax ñu joxoñ la ko pour jokkoo ak moom tam mën ngeen woote ci numéro yi di 77 126 10 77 wala 77 609 10 41 ak Serigne Modou Khary Mbacké boroom yàlla baax ku jokkoo ak moom gis solution ci say problème jaaraama Serigne Modou Khary Mbacké boroom yàlla baax